mais à euh, bi ma duggee ci loxo yi nijaayam à 60 màkkee ngi def cinquième primaire màkkee ba ma duggee ci ci loxo nijaayam ba yoon yàllay tey à 60 suñu bët musta daje. dama la ne Macky Gassame ak papam ñoo jaxasoo nekk ci benn kër bi nga xam ne dem na ba benn jamono lu leen tagale ba kenn ku nekk sax am kiram mooy bu leen tase fii pour affectation Macky ñu affecté ko Gassame ñu affecté ko Bambilor ci mbirum politique taa boobu diggante kaar Coumba Ndoffène ak Ibou Diouf euh, ñoom ñoom Macky ñu jot maire bi car maire defante ak Sewal daal ñu ñu tas leen fii mboolem ñooy Macky gasam am fi ñu tas ñi ñu yóbbu leen fas ñu yóbbu leen fuñu moo tax bàyyi wu sax ñu affecté ko fuñu bi waaw toogaat ba beneen jamono nag mu dellu si waat fii mu am fi retraite bu nag loolu rek leen tagale ci benn kër waaw boobu Macky ci ci kër ga eh, Macky la juddoo presque bi nga xam ne tas nañ mu nekk xale ci loxo ndeyam ak baayam la nekk. la papa bi am ay kilifaam taxul leen a woon bari doole lool waaye taxul leen a woon a néew doole lool it ndax euh, nit dina néew doole bañ a njobootam njabootam mais tabarikàlla macha allah papam attanoon na njabootam attanoon na njabootam doon jàppale njabootam seen dundu ba mot sëkk. amul nag lu baree bare bare baree mais attan na njabootam papaam attanoon na njabootam wax dëgg yàlla benn njaboot tamit du dox fenn fenn fenn fenn ba uti fenn dara luñ bëgg suba ba ngoon bàyyi ma nga ci biir. amoon na jamaano am bourse mu war a dem France mu ñëw ba fii ñu préparé ko mais comme que euh, étudiant Ablaye Wade la bi ñëwee PS koñe ko ñu annulé bourse bi mu continué njàngam université kenn mayu ko euh, bourse bu jàngul fenn. musuma ko dégg musuma ko gis musuma fii université la jàng. fii la am université la euh, am teesam. ba mu duggee ah, bu ma amee teesam bi pare boobu am na mooy mag la bu boobaa nag mun na fu ko neex mu jàngi ji waaw teesam fii la ko def. Macky li ñuy wax Macky ñàngal Macky du ñàngal de gëm la muy def rek la gëm la muy def moo ko jàpp mais du ñàngal de. Macky dafa gëm liggéeyam laa la wax dafa gëm li muy def lépp ko ci loo ko fekk ci biir liggéeyam mbaa ci biir njàngam da ko gëm ba bëggul ko ko ci ku ci randal benn yoon bëggul ku ko ci sonal benn yoon doon sagob rek nga bàyyi ko la muy liggéey mu liggéey ko dama ware man dinaa dëgg ñu koy wax Macky ñàngul ñàngal ñàngalul c'est-à-dire dafa am ay objectif yoo xam ne toujours moom fu mu taxaw di liggéey loolu bu sottiwul ci teg leneen. kii nga xam ne bii mooy nijaayam nuy nijaayam sama kër a ngi nii ñu susu ñu yar nijaayam ba fi ñuy waxee nii ci kàttanu yàlla suñuy kër tànn ki tëdd moo ñuy tàggale moom fa ay wéy juróom yar nañ ko ci lislaam yar nañ ko ci teey fekk yàlla moo ci def la mu ca def li nga xam ne moom lañu gis ci moom mooy gëm yàlla gu mat sëkk doylu gu mat sëkk fu mu jaar ci ay ay ay ay ay nguur ci nguur gi ci ay poste yu bëri ba mu yegg fi mu yegg te defu ci loo xam ne ci waru ca mooy dafa xam boppam wóor te alal réew mi xam ne alal réew du pour alalam alal réew mi la. benn yoon di la ma wax te lool yi itam ma demoon ci moom rek yërëm doom ak yooyu wax dëgg yàlla ci histoire am ak Abdoulaye Wade ma di ko masloo di ko wax góorgóorlu àdduna du dar ak nangam-nangam moo. foofu la mooy première mu ne ma mu ne ma najaay ma ne ma ne ko man lu ma nakkar rek lenn la du suma bopp du suma dara xanaa li nga xam ne moom bëggoon naa defal li ma li nga xam ne yee fas yéene naa ko di doon dimbali ay ay suma waajur wala ak suma waa mbokk mu aris bu musula waat mos na ma li nga xam ne lu ko nakari keroog damay jaay bitik ndax jàppale ko jàppale moromam ndax ku daan doo sa daan sa doole ku ne bu dara ñëwee nga war a teral boroom nga teral ko ca dañ koy jàppale mu dugg ci lu moomul ñu di ko laaj lu mu amul ñu di ko sas lu mu lu mu yorewut moo tax ñu jàpp ci ku ci nekk ci ñun am foo jàpp. damay liggéey di daan sama doole ku ñëw fekk ma ca ndax du sama gàcce du gàccey Macky ñun paa ñi Macky ngi jaay bitik ci buntu këram du gàccey Macky du sama gàcce. Macky nag li may li ñuy xaar ci moom ci réew mi xam na fi ñu ñu ci réew mi xam na coono réew mi xam na naqari réew mi xam na décoori réew mi lépp loo xam ne réew mi soxla nañ ko ci Macky Macky dina ko jëm bu neexee yàlla pour Macky na defar réew mi awma ci ñaari xel buñ ko muñalee tuuti ba mu dal mu toog xelam dal dana defar loo xam ne sax fooguñu ko woon ndax kuy gis la kuy dégg la. waaw lu ma xaar ci moom gannaaw ñaanal ko yàlla mooy li nga xam ne Sénégal yi óolu nañu ko bee jokko baatu réew mi yal na ko yàlla may kattan yàlla jàppale ko li waa Sénégal yi bugg ci moom ñu fekk fekk ko ci moom ñaan naa ci yàlla itam. ay mbubb yu may gis mu di ko sol ci campagne bi yu weex tal da yàlla def moo moo amee ko réew mi lu mu weexee su demee bee réew mi li nga xam ne sol soxla nañu ko jël ko ci loxam fekk jëliwuñu ko ci mbubb bu gàtt bu gàkk da fekk mu weex tal te itam maa ngi ñaan yàlla itam même bu buggee bay sax réew mi fekk defal na leen li nga xam ne moom la réew mi soxla ba réew mi mu ne ko bëgguñu nga nga dem lu ma ci teg itam mooy bëgg naa mu yemale ñëpp. Thank